ñu xam ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na natt bokk na ci li koy dindi mooy ñaan di ñaan yàlla foo toll yàlla mën na la teggil yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee lan yanfa xadarun min qadar ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله يونت بي نينا مويتو مونتا تاخا موتش سي دوغلو يالا مويتو تاخولا موچ ndax لي ñew يالا كوي ساني بو ne ci sa kaw la jëm muytu taxul nga loolu moom bu yeboo ñu xam ko waaye nag nee na na ngeen xam ne natt bu ñëwee na ngeen takkoo ñaan fa alaykum bi duaa te ñaan mbokk yi dafa nekk lu am solo ñaan googu mbokk su fekkee natt day faral di ñëw bokk na ci wallahi ab ñaana ngi boo xam ne lépp luy ittey àdduna moo xam da ngaa tiit moo xam da ragal moo xam danga jaaxle moo xam say projet da nga bëgg yàlla sottalal la ko moo xam say jafe-jafe da nga bëgg yàlla defaral na ko moo xam moo xam moo xam moo xam président bi ca palem ministre bi ca primature député bi ca fa mu nekk ca assemblée kenn ku nekk dana am jafe-jafe bu la jaaxal waaye wallaahi billaahi tallaahi duaa mustajaab laa lay jox ñaan boo xam ni insha allah buy nangu la ndax mujarrabun an ñaan la boo xam ni ñi ko def ñépp gis nañ ko yàlla na la yàlla boole ci ñu koy gis mbokk yi jullit day ñaan natt bu dikkee bu dikkul nga am projet bu la jaaxal jullil su nga def ko wala nga ut waxtu ñaani def ko fexel na ko sa làmmiñ tàmm tàllalal say loxo boo paree bul raay sa kanam ndax raay kanam ci ñaan bokku ci allahumma inni atabarra'u min xawli wa quwwati wa altajiu ila xawlik wa quwwatik allahumma a'inni wala tuin alayya wansurni wala tansur alayya wax wahdini wa yassiril hudaa li bokk yi ñaan bi wallaahi ku am soxla dee ko ñaan yàlla nit ñi nag di ngay ñaan léeg-léeg nga foog ñi nanguwul fekk nangu na am na la muy xeex waaye léeg-léeg nga ñaan te nangul jàngataatal sa bopp lan moo tax sa ñaan nanguwul est-ce que mel nga ni nga war a mel ba ngay ñaan ndax lekk nga lu lew ndax li nga naan lew na ndax li nga sol lew na ndax defo bàkkaar bu rëy yi bo am bo ci muccee bi idnillah soko ko yàlla dana la ko may bu la nexé dé ko def ma takrar ko moy allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik allahumma a'inni ولا تنصر عليّ اللهم أعني ولا تنصر علي اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي ñaan ko bu la neexee booy tëdd ñaan ko insha allah am na dua bara ibn adib moom mooy dëggal ñaan bi waaye ñaan bi ulama sunna yépp saxal nañ ni ñaan la buy nangu bi idnillah ان شاء الله بنن يوم ان نيو تي نيانو برا ابن عادل اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى ونحن عبيدك رقة اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم